moom am na moom ndax wax dëgg yàlla boo demee Touba dañ ko sàcc yeneen dëkk même Touba Dakar dañ leen faa gañ kon bari na dëkk ne tey jii dañ leen faa gañ mais ña élection yi ñàkk a jaar yoon rek moo ko ah, gëm naa ne man daal li ma rafet lu mooy carte d'identité yi. ni ni si nit ñi jotee. ak euh, ni changé waate bureau de vote yi daal man loo rafetlu ndax nit day déplacé wu ñu war a voté. ah ñu yóbbu ko ne ko fii doo fi voté ba nangam ak nangam affaire yooyu daal laa rafetlu waaw yooyu daal rafetlu mu ko dara dara dara. xam naa sàcc daal moom mënu fa am moom ah, nag yàqate mën na am te tamit euh, mais yàqate kii faralaate affaire yooyu loolu moom mënu fa am mënu fa am parce que soo xoolee si biir bureau de vote bi euh, Sénat Sénat ñoo ngi fa yabal nit am na beneen kii xaw xaw ma kan la mais gis naa fa yeneen ñaar ñoo xam ne ay observateur la ñoo xam ni bokk ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy commission bi nga xam ne ñoom ñoo yore li nga xam ne moom mooy vote bi yaakaar naa ne pour sàcc foofu noonu noonu foofu amu fa nakari man leen donc moo a ci nakari bon de toute façon damay gis bon euh, waa Benno Bokk Yaakaar bi ne ñoo raw ñoom au plus war na noo am lu plus de sant députés yaa ngi dégg damay gis ñoom bu nga xamee ne ñoom ah, nee ñoo gagné dañuy taxaw ci télé bi en haute voix di wax naan gagné duma nañ leen li ñuy ñaanaat mooy nunu fale président deuxième ah, régime ah, élection présidentielle kon ñoom fàtte nan lan moo leen war an kii ensemble